maaleykum suñ mbokk internet Pikini ñoo ngi fii ci Cap Manuel plage bu yanj bu taaru comme ni plage yu yi yëpp mel boo sàndee tuuti say bët di nga jàkkaarloo île tamit bu paradisiaque bu ñuy wax île des Madeleine waaye euh, li olof Njaay naan ba ñu weex na waaye deret moo ko lal moo dal fii plage euh, Cap Manuel bii nii ndax bu sànde say bët lu dul mbalit doo ko gis te du mbalitu mbalit ndax mbalit bu spécial la fii boo toxantoo tuuti di nga fi gis ay seringue dinga fi gis ay euh, perfusion ba sax am na ñu naan boo doxantoo tuuti dinga fi gis yaramu nit tànku nit wala ay baaraamu nit

fii nii ñu am ay tube yo xamantene tube perfusion la tube perfusion yi am pagay bouteille yi seringue yi nga xamantene je pense bien ak seen xolal seringue yoo xamante ne dafay ànd ak sen aiguille euh, euh, yi nga xamante c'est tellement dangereux pour la santé li nga xamante ne boo hôpital pour ñu boo demee pharmacie pour ñu jaay la sax c'est tout à fait un problème Drogue, yi euh, fii la ñuy ñëw di ravitailler wo ndax yi lañuy utiliser gis ngeen. mi yëpp euh, ndox mi jóge foofu euh, lu ci mel ni ndoxu opération ndoxu toilette yi ndoxu lépp fa lañ ko branché directement muy déversé wu waat ci plage bi vautour yaa ngi ne autour kenn xamul lu mu doon tan euh, du doxantu foo xamante ne amul lu mu fa lekk tan ku ko xam picc mi nga xamante ne du doxantu foo xamante ne amul lu fa lekk lii lal la kenn xamul lii lu mu doon kenn kenn kenn kenn xamul lu mu doon li ma ci gën a jaaxal seringue yi ñoom ñëpp am seen aiguille ñoom ñëpp ñëpp am seen aiguille gis ngeen ni affaire bi bañ na génn mais aiguille baa ngi ci waxee dara dara desul même les poches de sang même mbuus yi nga xamante ne si lañuy def seen deret yi li lay wan ni hôpitaux yi yàgg nañoo sotti seen i déchets fii mooy euh, dafa dem ba déchets yi dañu dem ba bokk ci terre bi bokk ci environnement bi mu ngi nii fa dem ba incrusté wu ci biir te nii di gis euh, deret bi ba tey mu ngi ci biir deretu lu mu deretu lu mu lu ne ci biir ban feebar la euh, kii nga xamante ne moom lañ defal prélèvement bi am ñu jël euh, kii bi nii sànni ñëpp am si accès masque yi lépp ñu ni mu ngi noonu askan bi ñoo ko gisandoo plage bu nit yi waroon a ñëw euh, féexlu plage bu nit yi waroon a ñëw sangu waaye au lieu de tout ça lii lañ fi gis seringue poche de sang yeneen ak yeneen ak yeneen mbalitu hôpital yoo nga xamante ne fii lañ ko sotti ba mu fees del del del del à qui la faute gouvernement bi nga xamante ne wa yàbbiwul lu si jëm comme xamaguñ ci dara dinañ ci wéyal di leen gëstul ngir gën leen indil ay leeral